lii benn buur la woon ak benn dag ñoom ñaari yàgg nañ yàgg goo xam ne kóllëre ku nekk séq nañ ko léegi nag buur bi xare bu mu mës a dem rek moom dag bi ñu ànd ak militaire yi gañe ko am xare bi waaju jub si mu ne dag bi bi par doo dem da ngay toog si dëkk bi parce que man yow laa wóolu te ñi ñuy jotee ragal naa ne ñoonu mën léegi nag sama nekk urus mi ngi fa ngalam nga fa xaalis nga fa sama jabar mi ngi fa dama koy tëj jox la caabi ji bu fan laa war am su ma ñëwee si diggante bi kon dund naa nga jox ma sama caabi su ma ñëwul nag dee naa nga jël sama jabar mu doon sa jabar nga jël dëkk bi nekk buur dëkk bi ni ko ah man de bëgguma bàyyi nga dem ñëwante naa la trop parce que maa ngi ne lu ne ko defar ak lu ma la wax. buur bi dem dox si lu mat benn fan rek gis nga gis benn ngelaw benn poussière poussière bi lu muy a jege si rek a wàññeeku lu muy gën a jege si ñëw ba si tànk fekk dëkk bi la dëkk bi rek sëgg te buur bi ne ndeysaan wax naa lu nekk mu toog dëkk bi may nangu toog xool topp na ma fii dëkk bi ko déet buur nakaa jum yow caabi bi ma jox nakaa jaawale parce que man essayé naa ba sonn mais bunt bi tijjeekuwul ndeket dag bi moom ba buur bi wanee ginnaaw moom jëm na tijji nekk bi seetal ma lii rek si confiance xam lépp maa ngi ñëwaat si beneen épisode fekkewuma lépp nag waaye liir naa lépp